mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax muy góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba mënoo dara si néeg dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba mënoo si dara yokkum awra kenn sutu ko fii fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi ngi produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko say ans day génn say fes génn blanc wala rob bu sa forme nu fàng karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga amee tànk yu miti di la sonal lool ngay góor ñu takk la xalaa boo seetee seex da koy dind si une minute yow mi nga xam ni da ngaa amee prostate bëñ buy metti seex da lay tàggaleeg moom jokkal ak moom si numéro téléphone yii muy 78 116 15 48 wala 78 475 06

man la booy séeréer dëkk ba laa jugee xeebuma benn liggéey lu ma am jox njaboot ji fee yaakaaruma si weer bu pour mën a am salaire sama sareet moom laay xëyee pour mën a am wecceet doyal naa gaal seen fiis ne leen kaw laay gis même bu may jël ci gaal yi dee pour mën a dund bel bi dund bi daa metti waral may jël ay risque foog ma dugg kaaw dellu si dose fi na me amo yoro. Hey, Maxi! Hey. You and Yeah, I'm gonna go right. I'm gonna go right. That's no Nice, I'm gonna go right. Yeah, I'm cool. I'm gonna go right. Let me go. tu xam nga xam nga xamee nga Massi ah <laughs> sama copain bi la sinon yaay ko am jàmm. mais xoolal sa bi naay ah. sa. waaw yow ak montar bi. non moom dañuy sew. tii tii tii loolu seen ñool ah. ñu dem. waaw dix ba demee ah. maa ngi jëndee lii moom sew maa ngi jëndee trente mille côté yooyu gis nga seen bi trente mille la jëndee seet. non si yow. daal yi daal yi moom. sama nongo moom ko jox rek nongo. wàllu waa cuus moo ma jox daal moo loolu ma jox wàcc cuus boo waaw dina la jox cuus amul danger ah dina la jox cuus yow yaa ngi leer rek ba temps mooy loolu gars damay du ma génn lu bëri moo loolu démb maay booy moo fi ñëwoon mu xaw sonn sax instant kan sa booy bi booy bi moo fi ñëwoon démb billaay vingt trois heures la ma fëgg nekk fa la fanaan wala fa la mu mujj fanaan démb léegi nag mujj faa woo bidanti sax barke naa la billaay bidanti maa yow ay midi ko yooyu kay léegi nag mu sonn gaan après bu ma yow ma sangu noonu dama sangu gaan booy bi nag sangu ni ah, sangu na ko jaamu sangu gaan mais jiw yaa ngi dégg nee na booy bi sangu bay fa waaw mel bu xëy kay ma ma ne ko dugal dem sangu ji. bay fa ah. bay fa non yow bokk na. Ah, wala ngoon dinaa ñëw. max demee ñëw de. non ñëwal dese. dinaa ñëw ah, eh, eh, wax nga yaa woo toogu sax koo ñàkk fayda yow kii du sa morom rak rakaat la rek di la manipuler loolu liggéey jox ndax affaire gel affaire ñàkk fay la dégg loo mu ne booyam bi fa la fanaan démb ñu mu fanaan xëy suba sangu génn. eh bien que alors loolu ngay savouré gis nga li yow loolu ngay savouré ne gis nga ko naan di teel a de original njool nag jekkure barke ah yow jekkuro barke bëgg naa la jàppale may la tuuti jom di la orienté ndaa amoo jom xool naa xool boo xam na mbaam dëgg nga yow kuy lekk mbaam bu la séenee na ngaan bis. looloo lan kii naan loola sangara. tux loola yamba waroo woon am benn ak eh, moom benn affaire tux tuxu ñu dee. dañoo naanoon dong waaye tuxu jaaral nii booy dem nga dem boo da nga tàng xool nag quoi non yow koo ñàkk fayda. non yow si a chauffeur terrain nga waroon doon. kañ dem chauffeur terrain nga waroon doon nekk si moteur bi. parce nanite goro yato nanite amo yoro yow munoo eh Yo Muno. Yo Muno, boo Muno, doo ñëw fii yow munoo boo munoon doo ñëw fii mun no mona. yow munoo ama mun moo tax ma ñëw sa baara yow munoo laa ah mun moo tax ma ñëw sa papa dama sa papa dama sa sama mam ah mama mama. ma dem sama mam dama dem sama dama si mer ma jox la pass nga dem gengene wala di tung man maa la dakk man di demel du Mama voilà ma ya si ma nekkee jeune dafa nank rek dafa nanke si ma nekkee jeune si si naaj bi si ma defee tu nandi bi ñëwaat xam nga maa dakk man di les papa les mama les jorok léegi kóoru ah ay tukku yamba lu la laa def noonu. si xam nga yow yàgg nga mandi sa petit ko gis xam ne yàgg nga mandi. wala moo nekk yow xam yàgg nga mandi. xam naa mandi voilà bàyyi yoro nag mu dox jeunesse moom mu mandi la muy mandi. da ngay duulu yoro du dox jeunesse. Eh, du ko du ko. Eh, maîtriser ses paroles la yow yaa war a noonu maîtriser sa bopp. xanaa xamoo ki nga waxal. am naa ku may waxal. Max Gradel. Max Gradel. yow it ko Gradel. naan nit yi amoo yoro naan nit yi

Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. Ça va? Alhamdulillah. Ah. Doo toog ba. Ah kooku. Sam na nga def waay. Togo. Ah ñi lan. Na nga def waay. Alhamdulillah. Ça va. Tarikala. Alhamdulillah. Maa ngi si jàmm. Alhamdulillah maa ngi si jàmm. Maa ngi si jàmm. Waaw. Ah, dañ doon doxantu jàdd wiira dem ba booru koñ ba. Yóbbu na ma géej tamit. Xam nga jaxaaw amul géej. waaw kii nu baaxoo nag ku baax la ndax yoon bi yëpp lu ñu romb mu jënd jox la ndeysaan ah. dëkkandoo jàmm ci gën bis du ñàkk bi lay ndeysaan len ni daal xamal la ko waaw sañ bañ hmm. lu ngoy ndayam bi lay ndeysaan li tax mu langal la ko hmm. xam na ko hmm. fi ne yaa ko fi dese koñ bépp fi ne nii am na fi gàcce mënatu laa ànd ak kenn yow rek na fi dese léegi nag xamal nooy ànd ak moom bu mu fexe ba dugal la ci ay mbiram de. Hmm. picc bu lakk ci taat lu muy bëgg. Mawlo hmm. kon Diana yaa ma ko gën a xam. déet koy wax ndax dégg nga li waykat ba wax nee na yaa a boole. Hmm. waaye moo mën a boole ndax yoroo ko sàngara ko. ah maa ngi si biir mu leen boole de bon yàlla ñu am jàmm. ah, ah? jàmm sax jàmm ko gën nag ah jàmm gën jamaade. yoroo dafa lakkale woon jàmm daal moo gën jamaa. leen de xamal naa la ko. wax deug yalla de li de moom ah, ñaan ñaanuñu ko yalla nak muy mandi waye na fi jaare rek banu ñu seq jàmm ci kër gi ndax ni moom wax deug yalla moom am na solo lool waaw. Ah, waaw sañatu ko di li mu fi daan def ci kër gi da koo sañatu ko la ni won dina and ak sa jarbaat bi di nga bëgg. ah yalla continue rek wax deug ah, yalla man de wax de dama ko mujj yërëm nag. ndeysaan kersa gi dama ko muju yërëm waye nak non la. non la non la nako nako nako ñilan rek. ba tay mi ngi am kersa nak mi daan man tuuti ma ah, ya. dama iya, ri dama koo ree façon wuy ma nag da nga koy jàppale ci kerse gi nit kamit bu la rusee léegi da nga koy tuuti gis naa nga koy moo boo ko defee dama la koy wax rek yarute dal man na dal ah, ah ah déet déet déet man na maa dal de man na maa dal su ah déet man nañ maa liggéey may mandi de ah ku lay liggéey ah gaañi yow dëkk bu soxor bi man nañ laa liggéey de ci bitel bi baax na yàlla nañ yàlla jàppale eh jógal tànkal ndax ñu man ma julli waay ñu ngi noddu gaawal waay ah te ngay julli. yow nijaay man maa ngi julli damaa setul damaa setul moo tax waaye xam nga ni man kat jullikat laa. lu fi indi ay damaa setul la ñu ñàkk fay tagal ma sa kii bi waay ay waay ñilaan julli julli ñilaan julli julli. nanite goro yato nanite amo yoro waaye ah zënëm na ko voilà tur ma fii sama moto bi gaañ quelque photo ba waaw door ma sama moto bi quelque photo rek ma door la quelque photo waaw taxawee ne mais da ngay jël lépp nag ah ok ci daal daal di suuf ah boy boy yow ah lu tax amuloo kalaas yow amoo personnalité amoo classe amoo table banc amoo école booy. amoo loolu. booy yow yow li nga nekkee ci koñ bi yow jaaduwul booy. booy yow yow yow damaa xam yow. yow affaire fobeer rek yow nga ñëw fobeer sa kanam rek sa tuñ nga yaakaar loolu mooy góor yàlla ah, di di di lii du life boy li nga nekkee nii da nga war a changer booy. est-ce que yaa ngi dégg yow nga wax sa papa jël galé bi en main quoi mais yow tolu abuyéré tolu génn jigéen dugal ci néeg muso sa ombal so doon ombal sax ñu xamné yow goor yalla nga mais do ombal kenn fi ngay nekk ak boy yi sa ki baaxul mënu mënuloo ko dara rek boy lol lol lol lol lol jeune jeune bu bëgg réussir du top sa tank yi suma ma sañoon nag nga changé style de life bi parce que li demul kër ak yaay dégg yow yow yow est-ce que ça va yow eh est-ce que ça va que ça va. mais yow tu t'entends parler. Ah, bien. bien ah. entends parler bien xam lu dama wala loolu. man maa ngi man xamuma may ko ne xamuma yow. ah lijjantiwuma la de mais gis naa la ci koñ bi nga baan baan di dul dul alors que tu n'es pas un dulkat xam nga la da war a sal sa comportement bi nga ñëw sa pap bu la doyul exemple nga jël ci man exemple comprends nga parce que man instant yii nii dama am ay ay affaires yu may defar ni dama bëgg a jël gaal bi dem Europe après ma tekki foofu fii. su ma ñëwee fii tabaxal sama yaay yaay gàlle jox ko voiture yu am ah, quatre pneus comprendre yow dog ma naka lay wéroo yow affaire gaal yow affaire gaal nit ñi bañ ko dépassé kañ la man loolu kañ laa gën a dégg sax boy yow nga def sa moyen yow ko dindi affaire gaal loolu nekkatul man gën naa kaa naa nekk naa Sénégal réussir jàppale bëggoon naa yàppale sama yaay ah mënu ma yow maam jëm nga taxaw fi naan nekk naa Sénégal réussir uma réussir uma ah loo fi liggéey du dem ah moo ma bëgg a dem yow nekkal fii rek doo je comprends amul problème. lan jox ma sama téléphone. waaw ah, ah, ah, am sa téléphone am na problème problème avancé avancé dama. avancé la yow yow est-ce que nit nga. waaw wàccal sama moto ngay bànn bànn lu fi wàccal lii sama moto la boo bëggee moto da ngay dem sa pap jëndal la ko wala sa yaay lebal la ko ngeen fay bëccëg. yow ba eh alsi. waaye wàccal sama moto amul alsi amul dara man eh maa la mën eh, eh wuy ma wàccal sama moto. yaa ma moto bi yow. am sa caabi wan ma sa caabi léegi. sama caabi dama ko fa de gaale. Eh, eh buus buus. Eh, um um yaa ma moto bi yow. waaye pa am naa wan ni waay. dañ ma koy yónnee woon waaw ma may parce que xam nga ne da ngaa piqué quoi am ah ah booy teel ni teel ni booy boo teel ni nag fu la bu a dee liggéey na fi doxaan rek te mosoo ëmbal soo doon ëmbal sax ñoo xam ne góor yàlla nga ñu ngente paa yi tuddee ko Alfayda mais ñàkk fu la moo tax da ngaa yow te dara baaxul. man may nandite si koñ maluma amu lu nyodi, amul amsi la ñooti pour mën a am si yenn geel yi waral may jaay sama nandite goro yato nandite amo yoro nandite goro yato nandite amo yoro